aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaaniirahim wasalallaahu ala seydina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin wa man bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi tey jii ci 17 safar ñu ngi ci eh, jumaay Tuubaa mag ji ci exposition bi nga xam ne daayiratu muxaddamatul xidma mi ngi koy def di ci gaaral yenn téere ak di ci wane yenn ci liggéey yi nga xam ni boroom xam-xam yi def nañ ko ak seen liggéey ñu ngi ñaan suñu boroom barkeel lépp ci barkeb Seexul Xadiim mi nga xam ne mooy borom bis bii di ñëw. tey jii nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci gaaral leen benn téere maanaam présenté leen benn téere boo xam ni mi ngi tudd Hadaa'iqul Fadaa'il fii siirati Cheikh Mouhamad fii siirati Cheikh Mouhamadou Fadal. muy téere boo xam ni day wax ci dunduk Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mi nga xam ni mooy ñaareelu xalifa ci yoonu murit muy téere boo xam ni sëti Cheikh Mouhamadou Fadal yi ñoom ñoo ko doon euh, taxaw bu nekk téere bu am solo gaaral googu nag muy présenté gi dinañ ko ànd ak kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoom ci ñu doon liggéey télé bi la bokk muy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Rafahi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal téere bi nag Eh, ñu wax li téere bi euh, làmbool waaye nag da koy def par ay bunt bunt bi nga xam ni mooy bi njëkk ci bunt yi xam naa ni fi lay tàmbalee ñu bàyyi ko nag mu nuyoo te tàmbalee eh, wax ñu nag li téere bi làmbool commencé ci téere ci ci bunt bi nga xam ne moom moo njëkk bisimilah sëñ Fall aouzu billahi min alshaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim يا رب صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب من قد فضلوا أزكى سلام, سلام والتدم رضوانهم يا من بك أعملوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci jotaayu xam-xam bii nga toog muy exposition nga xam ne moom la waa daayiratu muqaddamatul xidma di nekk ci jumaa yi di taxawu ñu ñëw tey ngir euh, gaaral téere boo xam ne euh, cheikh euh, muhammad ci cheikh muhammadul fadil lañ ko bind mi nga xam ne ci yëngutu yi ñu nekk moo ko bokk na ci ñi ko sooxee fii ci Touba ñuy ñaan suñ borom dolli ko ngërëm bàyyil la fi sunu kilifa gi fi nekk di Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàggata ñuy taxawu nii ak i njaboot gi yëpp ak murid yëpp ñu ñaan rek suñ suñ borom defal nu bayit boobu sëñ bi wax ci safar rabaxtu fi euh, fi am fi fi xeyril wara bada wa fi kulli shahrin zaydu ribxi wa fi safar rabaax ya fi ixdaami xeyril wara bada maanaam ñu ñaan rek fi kulli shahrin zaydu ribxina wa fi safar tey nag téere boobu nga wax muy xadaayiqul fadail fi siirati cheikh Mouhamadul Fadil te lajna ak lajnatu thaqaafiya bi nga xam ne moo topp ci daayira daayirab saytu cheikh Mouhamadul Fadil ñoo ko taxawu téere bi nag. ñu ngi ko jëlee ci ay liggéey yoo xam ne mbooloo mi daan lañ ko def doonoon ay majalaat maanaam ay magazine yoo xam ne dañ ko doon bind at mu jot magazine yooyu nag dafa yam rek ci lenn ci pàcc ci pàcc ci dunduk Cheikh Mouhamadul Fadel am na yoo xam ne ci jamonoy jumaay Tuubaa ji lañ jëloon am na boo xam ne ñoo jëloon ay relation ak i mbokkam ak yu mel noonu waaye dañoo dem ba yëg ne am na lu war a gën a yaatu mooy def ko ab téere te gën a yaatal gëstu bi itam gën a xootal yenn yi nga xam ne jotoon nañ koo bind loolu moo waral ñu def ko ab téere ko mooloo ko moolee ko ca Beyrouth ca Liban nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci wàllu mool téere bi nag mi ngi nekk ci juróom benni fusuul maanaam am na juróom benni teqale yu ci nekk teqale gu nekk dafa am luñ ko jagleel teqale gu njëkk gi nga xam ne moom la sëñ Galas wax mooy teqaleeg gane àdduna ak Cheikh Mouhamadul ak wàllub yaram ci wàllu xam-xam maanaam diggante fim mu gane àdduna ba ni mu tàmbalee jàng xam-xam diggante boobu ba ni mu jàngee xam-xam noppi moom lañ ci yaatal euh, téere bi nag ci ubbite gi euh, ki ci kàddu gi nga xam ne moo ci njëkk tab bi euh, xalifa bu Cheikh Mamadou Fadel ñu ñaanal ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu te wér Cheikh Abou Baraka moo ko def moo def ab taqdim moo taqdim boo xam ne lam cay wax mooy sant mbooloo mi nga xam ne ñoo ko taxawu wane ne jox na leen ci ndigal mi ngi leen ci ñaanal te soññu leen tamit ñu gën a liggéey wéyal liggéey yu mel loolu ay kàddoom loolu la làmbool geneen kàddu gi nga xam ne moo ci jugaat Euh, Cheikh Ahmadou Refaar yi moo ko moo ko wax moo ko bind moom itam lim bind mi ngi jëm rek ci ñaari ñaari pàcc ñaari xaaj la la jëmale am mbindam xaaj bu njëkk bi da ci wane solos ki ñuy bindal maanaam solos bind ci nit ku baax ba àgg ci nag daan rawatin rawatina nag ku mel ne Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moom la nit ñi xam ca mujjantal ga mu wax ne téere bi nag lamboo ak ay xew-xew ak ay nettali yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci fi gën a wér mel na kon moom ci boppam soññ na jàngkat yi ñu jàng téere bi dafa mel ne moom foofu la gën a jëmale am mbindam sëñ Mbàkke Abdourahmane tam nga xam ne moom mooy ñetteelu nit ki nga xam ne moo ko ubbi moom tamit ubbi gu mel noonu gi ma wax ne moom la Cheikh Ahmadou Rafaay yi def moom tamit gu mel noonu la def waaye da ko def sax ci ay bayit def ko ci baxru rajaz majzu wane ci tamit maanaam xóotaayu Euh, mataalib yi ci nekk euh, bi nga xam ne nag mooy kàddu ñi nga xam ñoo bind téere bi euh, docteur Cheikhna Mbacke moo xam moom Cheikh Mouhamadul Mourtada Fadl moom moo ko def moom tamit li mu def ci taqdim rek mooy leeral li tax ñu bind téere bi leeral jaar-jaar yi leeral bunt yi ci nekk ak yu mel noonu kon bunt boobu nga xam ne moo jiitu dañoo wane gane àdduna ak Cheikh Mouhamadul Fadil fa lañ jiital mbooloo mi nga xam ne ñoo doon saytu mbir yi nag présenté nañ Cheikh Mamadou Fadil jiital ci wayjuram yu ay way juram Cheikhul Khadim lañ njëkkee Cheikhul Khadim moom ñu ñu bëri si ñun tàmm nañ présentation daanaka kon yaataluñ ca waaye yaatal nañ tamit ci juram wu jigéen di soxna seyida xawaa Bousso yaatal nañ ci euh, ci waxtaane nañ ko wane ay njàmbaaram ak nekkoon gum nekkoon murit ak yu mel noonu ragal yàlla gum ragaloon yàlla ginnaaw bi ñu door a ñëw ci gane àdduna Cheikh Mahamadoul Fadil gane àdduna Cheikh Mahamadoul Fadil li ci mbokk yi saxal mooy mi ngi gane mi ngi gane àdduna ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala guddik àjjuma fan ak ñaar ci weeru rajab tombeek 1306 mu war a tombeek 29 mars 1889 moom la mbooloo mi dëppoo dëppoo nañ ci te Daaru Salaam la ko defee ci biir téere bi tamit leeral nañ am njàngum alxuraanam wax nañ ne boroom Touba moo ko dalal moo ko dalal fii ci Touba fii ñuy wax Daaru Rahman Daaru Naar te mu tollook kër Cheikh bu Mbacké foofu la wax waxee ne moom la foofu la dalee jàng moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha magam la ak sëñ Thierno Mbacké sëñ Omar Mbacké gelongal ñoom ñett la sëriñ bi dalalandoo dalalandoo moo leen wóyeeloon doon leen jàngal itam ba ni muy demee Jolof bi mu demee Jolof tamit fa lañ woyal nañ njàng ma foofa ba li mbokk yi saxal ci téere bi mooy bi sëriñ bi di dem ci géej gi ñaari riwaaya lañ ci andi indi nañu in nañu riwaaya buy tegtal ne Cheikh Mahamadul Fadel mi ngi tolloon suuratul anfaal loolu nag li ko liñ ci saxal mooy dañoo wax ne ci njëlbeenu njàng bu njëkk njëlbeen gi dañoo amoon aadawu suñuy njàng alxuraan dañuy tàmbali ci ñaari xaaj yi maanaam am amayata ak sa sabix ñaari xaaj yu mujj yi bokk mooy ñett fanweereelu xaaj mooy sa amayata ak sabix isma foofu la ñuy ubbee suñ jàngee ba noppi donc door tàmbalee bàqale jëm suuf loolu sax am na ñu koy def ba léegi rawatina ñi nga xam ne ñooy jàngee alxuraan ci wér ñaari danañ ci xam dara mooy dañuy tàmbalee ci juz ba jeexal ko tàmbalee bàqara jëm si jëm si euh, naas jëm si waat xulooxiya ci juz u fanweer ak euh, juz ñaar fukk ak juróom-ñeent am nañu am na beneen riwaay bu ñu indiwaat boo xam ne day tegtale ne Serigne Cheikh Mamadou Fat mi ngi tàmbalee ci suuf ba toll surtout Yacine. tàmbali naa jàng kon ba fer na ejj bu baax a baax a baax laataa muy euh, ba jóge ci géej gi ñu saxal it de daam Abdourahman moo ko àggaleel alxuraan ji comme ni mu àggaleele njabootuk Serigne bi ci wax nañ ne itam am njàngum xam-xamam ci njàngum xam-xamam. fa lañ euh, waxee ne ñi ko jàngal leeral nañ ñi ko jàngal xam-xam ñëpp wax nañ ne maam Thierno Birahim doon na ko jàngal sëñ Mbacke Bousso doon na ko jàngal maam Borom Saam doon na ko jàngal xam-xam sëñ Mbacke Bousso xam yi gën a fees ci yi mu ko doon jàngal nga xam ne moom lañ xam mooy moo ko jàngal ilmul mantiq téere boobu ñuy wax sullamul munawraq dañ wax ne moom la ko doon jàngal jàngal ko tamit at-tayyiba nga xam ne Abdusalaam ibnu Tayib moo ko bind ñaar yooyu yëpp ci mantiq lay wax Abdourahman al Akhdari moo bind Sullamul Munawwar xam nañ sa Abdourahman al Akhdari moo bind al Akhdari bi ñu xam. téere bi nga xam ne moom la Sëriñ Fàllu doon jàng itam ci balaaga mooy al Jawharul Maknuun moom tamit Abdourahman al Akhdari moo ko bind ak Uqudul Jamaan fi ilmi al maarif wal bayaan nga xam ne euh, Asuyuti moo ko bind moom tamit moom la doon jàng ci balaaga mbokk yi tamit ngir wane. jàngu xam-xamu Cheikh Mamadou Fadal gu sori andi nañ ay seede yu ko borom xam-xam yi seedeel ci luy wane xam-xamam luy wane ak euh, soreem ci wàllu xam-xam ak xootam ci wàllu xam-xam euh, ki nga xam ne moo ci jëkk def seede mooy Ibnu Hanbal al-Hasani nga xam ne moom li mu woy Cheikh Mamadou Fadal ci wàllu ci wàllum njàng mi. bay diñ ci indi ñu ngi ci gën a yaatal njàngum alquraanam nga xam moom dafa wax ne ala tilawati dicrillahi jalla ala tajwidihi indama yuqra wa tadbiri wa fahmi ma fi bi ajmaiha nassin wa sharxin wa taalifin wa tafsiri loolu lañ ko noonu lañ ko waxee indiwaat na beneen bayit boo xam tamit day wax ne lillahi lillahi ma qad batha min xikamin wa ma lahu baynana min maalihi qasama am na keneen koo xam ne tamit murid yi xam nañ ko lool seedeel na ko wàllum jàng xam-xamam muy al alawi Mouhamadou Abdoulaye al alawi bi nga xam ne bind na nafaxaatul miskiya di wax ne moom feeñal na maam Cheikh Mamadou Fadil dafa leeral dafa day day yéemu moom waa ji boppam moom Cheikh Abdourahman al alawi moomu ñaw xelam xóotu xam ak wane ne ak déggam moo sax kenn du ko tollooleeg sax jaas jaasi ju ñaw a ñaw maam xel mi ni muy ñim ñawee leer kenn du ko toll leeg jaas yi ju ñaw ak lum ñaw ñaw ni mu ko waxee yum naa fatan yum naa fatan dakauhu faslul xitaabil faadili fala tushabbih fahmahu bi xaddi shaybin fa bi xaddi shay fasili istasala al alma bihi lillahi min mustasili tamit seedo goo xam ne sëñ Abdourahman Bousso moo ko def sëñ Abdourahman Bousso mooy sëñ dam mbar sëñ dam maram nga xam ne sëñ dam mbar moom Euh, am na sax ci njaboot Cheikh Mamadou Fadel gi ñoo xam ne moom moo ko jàngal ni ko tamit indi nañ foo euh, bayit boo xam ne euh, sëñ Maodo ture mu faas moo ko doon moo ko ciy seedeel ak njàngoom xam-xamam sëñ sëñ dam sëñ Abdourahmane Bousso li mu wax mooy taraahu ayna aha tatxu ljumuuxu duxan baxran yajuudu lana bil almi wal am wax ne boo ko fekkee mu toog mbooloo mu wër ko da da ngay xam-xam bi may leeral day mel ne sax da ngaa ak géej ci xam-xam bu bu bu bari suñ Maodo Touré moom li mu wax mooy fekk naa Touba dem naa Touba fekk Cheikh Fadel mu nekk géej ñaari géej géej la ci wàllu tab waaye géej la tamit ci wàllu xam-xam maanaam duuse di di wàcc ak yéeg ci wàllu tabe ak ci wàllu xam-xam moo wax ne fa alfaytuhu bahrayni juudan wa xikmatan yamuuju bi amwaaji nada wa dirayati ak keneen ku ñu wax euh, euh, sëñ Mout euh, Mouhamad ibnu Ahmad ibnu Mout al Jagani al Mauritani moom tamit li mu ko seedeel mooy géej la ci xam-xam yëpp huwa al bahru al ghatamtamu fi l ataaya wa bahrun fi l ulumi ala zdiyaadi kon mbokk yi indi nañ fi ay bayt yu bëree bëri xam ne day wala boog ay seede yu bari bëri yoo xam borom xam-xam yu dëkk ci réew mi ak ñu dëkkul ci réew mi ñoo ko seedeel ci wàllu ci wàllu xam-xam kon bunt boobu la mbokk yi gën a yaatal ci téere bi moom mooy bunt bu njëkk bi nga xam ne ña ngi cay yaatal ni ma ko waxee sànq ak gane àddunaam ak wàllug yaroom ci wàllu xam-xam. jërëjëf sëñ Fallou ci euh, lu am solo lool nga xam ne gaaral nga ñu ko te mooy bunt bu njëkk ci téeréem nga tàmbalee ko ci kàddu gi njëkk nga xam ne sëñ Amadou Baraka moom moo ko yëkkati. Euh, te mooy yal ko yàlla mooy xalifa sëñ Amadou Fall yal na ko yàlla sàmm te dëgëral ko ak euh, présenté gi nga xam ne. am na lenn ci ay borom xam-xam ñoo xam ne def nañ ko ci biir téere bi ku mel ni ak Mamadou Rafahi ak Serigne Mbacke Abdourahmane ak docteur Serigne Cheikh naa Mbacke mi nga xam ne moom moo ko doon moom taqdim téere bi présenté na ko biir téere bi wax ña ci gane àddunaam ba ci am njàngam xam-xamam ak loolu lépp ak borom xam yi seede yuñ seede ci moom kon xam naa dañuy continuer rek dem ci beneen bunt bi ci topp te mooy bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllum maanaam tarbiya ak suufiya gi nga xam ne maanaam euh, ginnaaw am njàng loolu moo ci loolu moo ci topp bisimilah waaw ñaareelu bunt bi nga xam ne moom la mbokk yi doon yaatal ci téere bi mooy ñu ngi ko tuddee takk takwiinuhu suufi wa sifaatuhu wa axlaaquhu maanaam nekk maanaam ni niñ ko niñ ko tàggatee ci tasawuf ak lenn ci ay melokaanam lenn ci ay jikkoom ci bunt boobu mbokk cee yaatal lu am maanaa lu am solo mooy dañ koo def dañoo xaaj jëmmi takwiinuhu suufi ci bopp xaaj ay xaaj leeral ko wax naka la jaayante ak sëriñ bi foofu mbokk yi saxal nañ ci ne Cheikh Mahamadul Fadil maanaam doomu Cheikhul Xadim la maanaam Cheikhul mooy waajuram bu góor waaye day mel ne moom nekk gu Cheikhul Xadim nekk waajuram bu góor bàyyiwu koon xel ci jëflanteem ak digganteem ak Cheikhul Xadim ci li bokk na ci li koy gën a tegtale mooy mbokk yi ci téere bi saxal nañ ne li ko tàmbalee gànnaar ba ni sëñ bi génnee àdduna ci zahir biñ noppee gis Cheikhul Khadim tàqalikowut ak moom tàqalikoo gu leer naññi bu dee bu dee gànnaar sëñ bi dem na fa ak moom bu dee Ceyeen Jolof naa ci dikk foofu la jaayante bu dee njaareem sëñ bi ñëw na fa ba tay Cheikh Mamadou Fadil ñëw na fa tay fa la ko sëñ bi sax joxee ndigal mu sañ ci dëkkam boobu di nindi ba mu sañcee nindi ba noppi itam daan na indi ay addiyaam saa yu nekk ci sëriñ bi ak yu mel noonu kon buntu boobu lañ cay leeral rek mooy mbokk yi saxal nañ ne lii njëkk a lii njëkk a wane ak nekkam mu tasawif mooy jaayante jaayanteeg Cheikhul Khadim ginnaaw xisa boobu nga xam ne moom la mbokk yi indi ci téere bi xisa boo xam ne moom Cheikh Mamadul Fadil moo koy nettalil boppam mbokk yi andi nañ ko bind ko ci arab wax ne moom Cheikh Mamadul Fadil dafa wax ne dafa toog ca ca yéen jolof mook sëriñ bi ak sëñ Masamba ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëñ Mor Roqeye Bousso sëñ Mor Roqeye Bousso sëñ Seexu moo ko jur sëñ Seexu Bousso moom sëñ Mbàkke Bousso sëñ Seexu Bousso ak sëriñ bi ñoo bokk waaye itam maanaam sëñ Mor Roqeye soxna Roqeye moom mii mook sëriñ ba ñoo bokk maanaam sëñ Mor Roqeye Bousso sëñ bi daa nekk waajuram nekkaat nijaayam mu ne sëñ sëñ Fallou mooy wax daal ne sëñ bi def na li ma amee day du ak nekk am mbokk mayewu ko mu jublu ci sëñ Masamba nekk doom mayewu ko mu jublu ci ñaaram mu jublu ci Cheikh Mahamadul Fadil ak sëñ Modou Moustapha nekk ab jarbaat mayewu ko mu jublu ci sëñ Modou Roqee Bousso ca foofa li koy maye mooy ak jaayante wala iraada la ko sëñ bi wooyee maanaam dañ koy sàkku daal pour am ko sëñ Fàllu ci la bindee xasidaam gu siiw googu jaayanteeg sëñ Tuubaa yaa ayyuha cheikhu nafisu murtaja yaa fatihan ma kaana qablu murtaja mooy yow mi nga xam ne yaa gànjaru lool te te di kuñ yaakaar yow mi nga xam ne yaa ubbi la nga xam ne dafa tëju woon man Cheikh Mouhamadul Fadil maa ngi jaay lii ma am ci yow muy ak njureel jëndee ko ak taalibe ngir ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy xar baax ci ak jaayante daan ne ko ginnaaw bi nga ko jëndee itam jox naa la jox naa la ko addiya maanaam njëg gi nga ma koy jëndalee gi nga ma koy joxee jox naa la ko addiya daan ne yàlla nga yow mi nga xam ne ab làqatukaay nga yàlla nga ma nangul lii ci sa tedd nga maa ngi la koy ñaan ci darajey sa liggéeykat ki nga xam ne moom ngay liggéeyal muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan ma kaana qablu murtaja baatu bunuwatiya bil irada lakum li kay axda bi qarqi aada min baadi ma ashtaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi gayri manni فلتقبلوها من يا ملاذ كرما لا زلتم بين البراء لا زلتم بين البرايا علما بجاه مخدوكم مخدومكم المفضل خير الأواخر معا والأول صلى عليه ربنا وسلم وسلم وآله وصحبه وكرم fii tamit mbokk yi indi fi lu am solo mooy bu fekkee ñemewu ñoo wax ne moom donc la waaye koo xam ne dafa bind jaayante ak Cheikhul Khadim damay jaayante ak yow ci bayit yi ma jàng sëñ bi bind ko tontu ko tontu gu leen lan nañ fa ajaabahu cheikh lañ wax bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala kulli xayri ala xayri kulli maxdum amma baad fal jawaab fi lmasalatayn dafa wax ne falaa taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ayunin jazaan bi ma kaanu yaamaluun aaya alquran boobu la ko sëriñ bi tontu daan ne wasalaamun aleykum yasurrukum wa yanfaakum wala yadurrukum abadan wasalaam ñaari tontu la ko tontu tontu lu njëkk li ab ay alxuraan la bu nokk ci nekk ci sóoratu sajda ay alxuraan bi dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy sunu borom dafa am ñum doon tagg di wane ne ñoom nii lañ mel ñooñ nag seen melokaan yooyu noonu la cay la cay bàyyi ko moo tekki aaya bi falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bi ma kaanu yaamaluun mooy innama yuminu bi ayatina alladina ida dukiru biha xarru sujjada wa sabaxu bi xamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun tatajafa junubuhum an almadaajici yadcuuna rabbahum xawfan wa tamacan wa mimma razaqnahum yunfiquun daa ciy teg falaa taalamu nafs loolu la ko sëñ bi tontu daan ne ko daa koy tontuwaat geneen tontu wa salaamun aleykum lii de da leen di jariñ ba faaw tëdd leen lor mukk loolu la ko tontu bokk na ci sax in mbokk yi tamit indi nañ maanaam Euh, dénkaan googu sëriñ bi dénk dénkaan goo xam ne sëriñ bi da ko soññu ci mu moytandiku waxi nit ñi yow yaay doom yow yaay diw di doomi diw sa bàyyi ni mu mel nangam nangam sëriñ bi wax na ko ba ne ko nekk bul nekk ko ab nitu yàq waaye nekkal ku bëgg lu baax waaye bul nekk nit koo xam ne dangay ngay wane yàq bu rëy boo bokk mooy bismillahi rahmaani rahim amma baadu fala yaxrurka yaa bunayya xiilu naas yaa sayidana wabna sayidana wabna sayidina fa inna afdala siyaadati maktasabtaha li nafsik laa maktasaba laka abaau wa judud abaau abaau wa judud abaun wa judud daan ne wa fi l afaali wal aqwaal laa fi l amaami wal axwaal li ñuy woo li ñuy li li nga xam ne dañ koy puukare woo di ndamoo lu ñuy jëf ak lu ñuy wax waaye nekkul ci sama maam mooy diw wala sama baayu tax diw la wala sama nijaay diw la wa anna sharafa fi la alaaliya laa fi laa fi rimami albaaliya maanaam ak tedd nga mi ngi nekk ci yitte ju kawe li anna sharaf al axraaqi yaxtaaju ila sharaf al axlaaq maanaam tedd nga mbokk wala fami mi ngi la koy tax a tedd mooy tedd ngay jikko wa lidalika qaalu laa xamda liman sharafa nasabuhu wa saxafa adabuhu maanaam kenn du sant koo xam ne dafa ame ay mbokk yu baax waaye jikkoom rafetut ay tegginam rafetut ci la ko waxee ne ko nekkal koy maytane ko waaye bul nekk kuy wane ne ab yax bu rëy kun isaamiyan wala takun azamiyan fa inna isaaman huwa alqail daa di wax daa di wax ab bayit nafsu isaamin sawadat isaama wa allamathu alkarra wal iqdaama wa sayarathu malikan humama ndénkaan loolu la ko sëñ bi wax kon maanaam li li li mbokk yu jublu fii rek mooy wane ak feeñal soobu gu Cheikh Mahamadou Fadil Sud ci lu ak jàng jàngale ci loolu tamit yemul moom Cheikh Fadal ci nekk koo xam ne dañ koo yar ci tasawuf rek mbokk yi saxal nañ ne ginnaaw moom bi mu amee bi mu nekkee ku kuñ kuñ formé ci tasawuf nekk suufi kuñ yar dafa bokk ci moom tamit ko moom ci bo dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ doon defaree ci biir tasawuf lim nañ fi ñu baree bari ñoo xam ne moo leen moo leen doon dañoo nekkoon ci daaraam daa ñoo nekkoon ci daaraam mu leen doon jàngal mën nañ cee mën nañ cee mën nañ cee lim ñu bëree bëri sëñ Cheikh Coro moom sëñ Cheikh Absa mën nañ cee lim sëñ sëñ sëñ Mbacke Bousso sëñ Mbacke Asukan lañ ko daan wax doomi sëñ Ibrahima Bousso la mën nañ cee lim sëñ Ousmane Bousso mën nañ cee lim sëñ Bousso Safoor sëñ Naar Jenn doomi sëñ Baara Jenn mu sëñ Cheikh Issa Jenn la sëñ ma Fari njaay mën nañ ko cee lim mën nañ cee lim sëñ Mbay Sall mën nañ cee lim sëñ Omar sëñ Thierno Fall mën nañ teel ay binta ak ñu bari ñoo xam ne ñenn ñi sax ci daadam lañ nekkoon ñu ñu gën a siiw lu mel ne seen seex Jëmm Fall mi nga xam ne moo fi nekkoon xalif xalifa Baye Fall yàggul lool sëñ Cheikh Fall Baye góor sëñ Modou Aminta Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Mor Talla Fall nga xam ne xaritam la woon lool donte moom nekkoon na ci sëñ bi waaye bokk na ñi sëñ Fall lu doon lobbanti tamit ma ne sa lim mbooloo mu bare bari ci murid yi xam ñëpp sëñ Modou Diop ma sàmm mu sëñ mu sëñ Modou mu sëñ Modou ma sàmm mu sëñ ma sàmm Diop sàmm nekkuloon ci donge sëñ fàllu yi waaye bokk nañ ci ñi nga xam ne sëñ Fallou leen lobbande ci ci murid gi kon suñ ko toppee daal dañuy seetlu ne mbokk yi saxal nañ ñaar ci sëñ fàllu ci ci ak takwinuhu as-suufi mooy ginnaaw bi nga xamee ne jaayante nag sëñ bi dëggal ak jaayanteem daan andi addiya daan wane ne daal moom jébbalu na dëgg-dëgg jébbalu dañoo saxal ne tamit ginnaaw bi mu bi mu defee loolu ba pare da doon moom tamit ñoo xam ne ay suuf dëgg lañ daan doon mbokk yi saxal nañ loolu waaye ci biir bunt bi tamit mbokk yi indi nañ ci <clears throat> ay jikkoom rawatina lu mel ne ak muñam lu mel ne ak dëddu àdduna <clears throat> lu mel ne ak yaatoom ak yaatoom ak waa ak ak xajoo ay bang-bang ak yooyu yëpp ci ñaareelu bunt bi mbokk yi la bu baax a baax. jërëjëf sëñ Fallou ci ñaareelu bunt boobu noonu ndax bunt bi bunt yëpp juróom-benn bunt la ñaari jàll na indil lañu ci. jëm ci wàllu xam-xamam akum njàngam te jàng ak xam la ca war a topp mooy la ca war a topp mooy nit ki ñu defar ko maanaam tarbiyo ko ba mu mënee ak ay jukkum te mooy bunt bi nga génn léegi wan nga ñu nii ko Serigne Touba fi ko Serigne Touba jaarale ci tarbiyo ko ak euh, tàggat ko ba ginnaaw loolu ginnaaw bi mu jaayanteeg moom wan ko ni li nga may woo wala li ma bëgg noppi naa pour ànd ci pour ànd ceeg yow kon ba ci ak euh, tarbiyaam fi mu jeexee moom it taxul mu bàyyi waaye ñi ko Serigne tubaab boo lay loon it euh, mu jaarale leen fi nga xam ne Serigne Touba jaaral euh, jaaral na ko fa. nga wax ñu ci bunt boobu it lenn ci nga xam ne ay ay ay jikkoom la yi nga xam ne mbokk yi tu tu tudd nañ ko ci. kon loolu lépp mel na ni bu jàllee la ñu war a séentu rek mooy nit ki lañ ko jàngal yar ko ci mu jëfe ko te loolu mooy ñetteelu bunt bi te mooy bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci. ni fonke woon jaamu yàlla ak ni mu daan jaamu yàlla ak liggéey bu rëy bi nga xam ne defal na ko jaam yi rawatina lu jëm ci wàllum euh, seen li leen dimbali ci ci jaamu ci jaamu yàlla kon bisimilah ci ñetteelu bunt bi. jërëjëf euh, ci wàllu maanaam ñetteel xaaju téere bi mu ngi tudd al ah, mu ngi tudd ibadatuhu wa xidmatuhu foofu dañ koo ay xaaj. xaaj adatu bi ak xid daanaka ci jaamu yàlla la bokk waaye sëñ Fallou mi ngi ko daan xamle ci jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci wàllu jaamu yàlla nag li ci mbokk yi njëkk yaatal mooy moom sëñ Fallou ci boppam ni fonke woon jooxe jaamu yàlla yi moo xam julli moo xam woor la moo xam aj màkka la moo xam azaka la Euh, julli lañ ci njëkk a jiital julli googu ginnaaw xam nañ fonk gum fonkoon julli waxtu juróom fonkoon ko lool julli ci àjjuma nettali lañ ci biir la nettali goo xam ne mbokk yi ñu ngi ko jëlee ci sëñ Afiye Ñang mu ne fàllu daan naafi la téeméeri rakka ci guddi gu jot ci ay jamonoom loolu da ko royee ci maamam wala boo ko waajuram di sëñ Mamor jaara mu nga xam ne sax doon na ko jàngal alxuraan doon na ko jàngal xam-xam waaye mbokk yi yemuñu foofu ci wàllu julli googu tamit dañ fee dañ fee leeral ay jàkka yoo xam ne moo ko tabax yii tamit dugal alalam bu baax a baax bu ci jiitu rek jumaa ji nga xam ne moom la defal waa Mbàkke Xewar da dafa jumaa ji sax da koo tuddee woon àllarba joo xam ne dafa wax ne da ko ameeloon euh, Mamor Mamor Diarra sëñ Mamor Diarra ni ko noonu tamit ca Gédé Bousso jàkka taxawloon na fa jàkka buñ doon wax bu ñuy wax jullukaay moom jullukaay bu gën mag jullukaay bi ñu nekk muy jumaay Touba tamit daanaka ci ay loxoom la ko suñu borom sottalee grande mosquée bu Dakar itam bañ koy tabax jugal na ci alalam bu baax a baax a baax a baax kon feeñal nañ bu baax a baax fonk gum fonkoon julli feeñal nañ tamit fonk gum fonkoon koor mbokk yi indi nañ ci biir téere bi benn xissa boo xam ne day wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci liggéey jumaa ji te mën a boole liggéey jumaa ji ak woor na ngeen na ngeen ko boole su fekkee mënoo leen ko bàyyi leen liggéey jumaa ji te woor su fekkee da ngeen amut loo leen dogee nangeen ñëw fi man ma jox leen loo leen wooree maanaam fonk kooram fonk koor googu ci la daan naafila sax ci këram di naafila alxuraan ji taraweex bi ñu xam am na ko fu suñ mbokk indi nañ ko wax nañ ne sëñ Moussa Ka way na ko baytu sëñ Moussa Ka booga booba mooy aalimun wariun xaafidun yaanu daan laal weeru koor mooy ci ba ci boobu mu koy euh, way ni ki noonu tamit aj màkka aj màkka mbokk yi and nañ mbind moo xam ne Sëñ Fàllu ci bopp moo ko mbind nettali ki nettali ki aj nettali ci ajam gi aj gi tàmbalee ca ba muy jóge senegal ba ni mu dellu suwaatee wax fi jaar yëpp kéemtaan ya ci aj aj googu itam mbokk yi and nañ ci lu am solo mooy sëñ Fallou bi mu demee Makka saxee nañu mën nañ ko dugal ci xidma mooy jaamu yàlla yi mooy bi mu ba mu demee ba ca barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bind lettre boo xam ne képp koo xam ne xam na la ca jamono yooya mu bind sa tur tudd sa tur ca kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne xamoon na leen dañ génn àdduna tamit mu tudd leen ñaanal leen ñi nga xam ne xamu leen. ci ñuy waaj a ñëw tamit mu ñaana leen noonu la ko waxee ci lettre bi lettre bi mbokk yi indi nañ ko ci mulxaqaat yi nekk ci biir tere bi loolu tamit lu fees a fees la ci bi demee ci aj gi waaye li mbokk yi fii nag nga xam ne moo tax sax xëy na moo gën a mën a yaatal ci bunt bi mooy liggéey bi mu doon liggéeyal jaamu yàlla yi liggéeyal jaamu yàlla nag sëñ Touba Cheikhul Khadim indi na ci masaalikul jinaan di wax ne yowmal xiyaam buñ tegee siraat maanaam bu bu nit ñi waree jéggi si siraat ba ñëpp am ak tiitaange day am ku woote daan ne ana ñi daan liggéeyal ja ana ñi daan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ay ñan ñooy waa xidma ñan ñooy ahlu xidma ñoom ñëpp ñu tont daan ne daan ñu naan leen kaay leen dugg àjjana dem leen àjjana joo xam ne du ànd ak coona du ànd ak fitna daan ne ñoom ñëpp nag Sëñ Tuubaa mi ngi ko waxee ci masal ku jaan daan ne waqiila in xadara يوم الباري وضرب الصراط فوق النار وكابد الورى الجوى والأمة نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان للجنان مسرعين أن يقال لهم حمد الجنة بغير محنة غير فتنة فاخدمهم طرا لوجه الله فقط بلا من ولا تناهي am na benn maqula bu siiw boo xam ne mbokk yi indi nañ ko di wax ne ki nga xam ne mooy sang ay nit nit boo nekkee ki leen ki nekk seen sang mooy ki leen di liggéeyal <clears throat> buñ doon xool nag liggéeyu Cheikh moo Fadel bi nga xam ne li ci mbokk yi gën a yaatal mooy ay daara alxuraan yum tabax daara alxuraan yoo xam ne ci ay jamonoom laataa mu fi jóge tabax na lu toll fanweer ak ñett ci ay da ay barab yoo xam ne dañu fay mbokk yi saxal nañ ko bi tabax tamit wala fexe ba wutal ay dëkk wala ay kër ñoo xam ne dañ ko yitte woo woon mbokk yi saxal nañ ko saxal nañ ko ci daara jàppale ñoo xam ne dañ doon jàng xam-xam dañuy jàng xam-xam soit dañoo bëgg a génn wala dañoo nekk ci biir réew mi amuñu woon luñ def amuñu woon yenn moyens yi mbokk yi indi nañ ay exemple yu bari bari yoo xam ne day tegtalee jàppale gum doon jàppale ñu doon sàkku xam-xam moo xam kuy sàkku xam-xam biir réew am na ñu bari ci ñoo xam ne ñu ci dëkk bi la Sëñ Fallou moo leen moo leen tettee ba ñoo xam ne ay njabootam lañ ak ñoo xam ne ak yóbbu ay nit tamit màkka indi nañ ci yu bëree bëri moo xam ñi nga xam ne daleen doon màkka jàppale leen ñuy jaar ci poto wala bi avion gënee tasaaroo ci ay jamono tamit ñi nga xam ne ñoo jaar ci avion indi nañ ci ñu bëri bari loolu daan na ko daan na def sax ci njabootam gi ku ci masa bind ñaari kaamil mu mu jox la bee mag ci la ci la yóbboo woon suñ Modou Xabaan nii nga xam ne booba comme defoon na loolu Cheikh Mamadou Fadal digge woon rek loolu euh, comme defoon na Cheikh Mamadou Fadal digge woon rek bokkoon na ci ñi nga xam ne yóbboo woon lan leen Makka muy 1963 loolu tamit mbokk yi saxal nañ ko sëñ Ibrahima Diaw sëñ sëñ Ibrahima Diaw doomi sëñ Mouhamed Mouhamed Diaw Mouhamed sëñ Mouhamed Diaw paxa la na lu may lu may sëñ àllu ci liggéey yu rëy tan def wax ne yaa ayyuhal mifdaalu yaa mufaddal faddalaka aljamilu mimman fuddilu axyayta diina almustafa atmamta masjida xibbihi bihi kurrimta aslaxta ma aslaxtahu arsalta lilxajji aqwaman wa qad anfaqta laa zilta fi athwaabi majdin tarfulu wala tura chamsu ulaaka tafulu ci noonu tamit li nga xam ne liggéeyal na ko mbooloo mi suñ fàllu mën nañ cee lim maanaam xew-xew jamono yi nga xam ne danaan danaan xew loolu mbokk yi leeral nañ ko maanaam am ay xew-xew yoo xam ne dañu daan jël mawxif bu leer nañ ñi xëcc am na mbokk yi wax ne maanaam lii ñu rajo Dakar wala rajo Sénégal ci bopp laalam la nekkoon su bëggee wax soxla soo xam naa bëgg réew mépp àgg ci rek day xëcc ci rek antenne bi daal di wax li mu bëgg wax lu ma saan xew ci réew mi moo xam waa réew mi ci boppam la ñeel wala lu jóge bitim réew la ñeel waa réew mi dana ko leeral wax wax ci xelam wax ci xalaatam bu fekkee ñam sañ a digal mu dëgal leen ci loolu tamit dañ koy dañ koy dugal ci ci xidma gi bu dee lim liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom daanaka kenn mënu koo mënu koo lim mbokk yi indi nañ ci ay misaal yu bëree bëree bëri maanaam bokk na ci misaal yi ñu ci joxe mooy kaamil yi mu daan bindal sëñ Touba kaamil yoo xam ne da ko daan boole ak mbay mi mu daan bay par nawet ak ci ñi nga xam ne daan na bindal siñ Touba ay ay ay kaamil rek daan bind tamit ay xasida ak ci nga xam ne moom la sëñ bi moom la sëñ bi mu fi jóge sëñ bi mbébétoon na aj Makka bokk na ci ñu ko ajaloon sëñ bi mbébétoon na jumaay Touba bokk na moo ko moo moo ci ci xilaafaam wala ci moom la jumaay Touba ji mate bokk na ci li sëñ bi mbébétoon am fu ñu jàngee daarul maarif nga xam ne nekk ci fii jumaay Touba nga xam ne bokk na ci sax ci li mbokk exposé fii moo ko fi taxawal kon day mel ci liggéeyal doomu aadama yi ak ci liggéeyal Cheikhul Khadim moom participer na ci lu bëree bëri. jërëjëf sëñ Fallou ci bunt bu am solo boobu nga xam ne dugal nga ñu ci léegi te mooy bunt bu am solo doon wax ci jàmm ni mu fonke woon jàmm yàlla ak liggéey bi rëy bi nga xam ne defal na ko euh, jaamu yàlla yi rawatina lépp loo xam ne sax mooy yombal jàmm seenu euh, jaamu yàlla kon xam naa ni boobu mooy ñetteelu bunt bi damay jiima dugg rek ci euh, ñeenteelu bunt bi te loolu mooy dugg ci ak xilaafaam mooy bi mu Euh, toogee xalifa ci jiite yoonu wi jiite mbokk yëpp ak euh, boobu nag euh, bunt boobu nag moo ànd ak ay indiasaan maanaam bi mu nekkee xalifa liggéey yu rëy yi nga xam ne liggéey na ko ci yoonu murit yi di jëm ci dëkk bi yi di jëm ci jaam yi di jëm ci réew mi yooyu bisimilah suñu fàllu ñu dugg ci ñeenteelu buntu bi. jërëjëf waaw ci ñu fàttali ne Serigne Fallou mi ngi nekk xalifa loolu mooy ñeenteelu xaaji bunt yi ñu ngi ko tuddee in fatuhu wa injazatuhu li muy leeral rek mooy xilaafaam xilaafa gi mi ngi jël mille neuf bi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu génnee àdduna 45 ba 68 moo nekk bu Cheikhul Khadim foofu mbokk yi accentué nañ maanaam taxaw nañ bu baax a baax ci ñetti mbir wala ci ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne dama koy lim benn par benn benn bu ci nekk suñu borom mi dara tawut def na ne. lépp ba fii may waxee génn lu ñuy teg loxo la ba léegi bokk na ci ni ma ko waxee sànq ni ma ko junjee léegi mooy mbébét ñetti mbébét yoo xam ne Cheikhul Khadim dafa ko amoon mbébét mu njëkk bi nga xam ne sëñ bi tudd na ko fu bëree bari mooy makka dem makka goo xam ne xëy na du ñàkk mu ànd ak ziyaare yonent bi sallallahu alayhi suñ Tuubaa dana wax wax na fu bari yaa rabbi zawral bayti wal madina زيادة عن الريا مسونة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت wax na ko ay yoon yubashiruka albaaqi bi qatti karamatan wa in kuntu an ard almadinati daana maam sëñ bi wane na ay yoon yoon bëgg gu bëgg dem Makka ak yu mel noonu ci bi fi mi fi jógee rek benn at sëñ Fallou bokk na ci ñi nga xam ne dem nañ ak Makka joxe seen faratay bopp waaye nekkal fa tànki Cheikhul Khadim itam niki noonu tamit Jumaay Touba jumaay Touba ji nga xam ne ci ay loxoom la àggee foofu itam mbokk yi taxaw nañ fi taxawaay yu am solo mooy dañoo xaaj jëmmi jumaay Touba ji ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy jëmmi jumaay Touba ji ci jamono Cheikhul Khadim mooy diggante autorisation yaag diggante wut plan yaag diggante natt baak jubale ko xiblaak yooyu nga xam ne sëñ bu Buso lañ ko dénkoon yooyu mbokk yaatal nañ si bu baax a baax yaatal nañ bu baax a baax itam. projet bu jumaay Touba ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha projet bu jumaay Touba ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha yi tamit ñetti étape la étape bi nga xam ne moo ci jiitu mooy état bu indi jële raay bi nga xam ne moo doon indi bagage yi ñuy war a defaree jumaay Touba jële ko Jurbel indi ko Touba foofu indi nañ fi ay leeral yu bëree jëlee ko nag ci téere yi nga xam ne moo ci bind rawatina Irwaa un Nadim gi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Bachir euh, Cheikh Mouhamadul Lamine Diop dagana bind Irwaa un Nadim min azbi xubbil qadim ak yu mel noonu ba ni Cheikh Mouhamadul Moustapha tegee xeeru jumaa ji ba fam yamoon fa la mbokk yi tàmbalee itam ci liggéeyam Cheikh Mouhamadul Fadil liggéeyam Cheikh Mouhamadul Fadil boobu mbokk yi leeral nañ bu baax a baax ni Cheikh Mouhamadul Fadil séddalee li nga xam ne moo nekk ci jumaay Touba ji liggéeyu jumaay Touba ji doon suuf seek ñi doon taxaw liggéey beek ñi doon joxe ndox mi ñëpp ñenn ñu nekk indi nañ seen leeral kenn ku nekk rôle bi yoon ci jumaay Touba ba ni ko mbokk yi leeral nañ tàmbalee foofu ba ni ko Cheikh Abdoul Fadil euh, ubbee tàmbale koo tàmbale koo jiite ni ko noonu tamit indi nañ projet maanaam de enclavé wu gi ah, gi Touba enclavé woon Cheikh Mahamadou Fadel ci ay loxoom la ko suñu borom enclavé ndax mbokk yi saxal nañ ne Touba ci xilaaf ak Sëñ Fàllu lañ tàmbalee gis am ndox ci xilaaf ak Cheikh Mahamadou Fadel lañ tàmbalee gis courant ci xilaaf ak Cheikh Mahamadou Fadel itam ci la fi tali yu bari ñëwee tali ndeyjoor bi maanaam lu jëm lu jóge ci wàllu bëj Saalum ak bu jóge ci bëj gànnaar ak bu jóge ci penku tuuti maanaam jóge ba wala Daarul Moxti Daarul Moxti googa sax moo fa yóbbu tali ba mu fexe ba mu jaar biir biir Mesere kon ci ci loolu rek mbokk yaatal nañ ci bu baax a baax maanaam jamono yi nga xam ne sëñ bi sëñ Fallou daa nekk xalifa jamono yooyu Touba amul ndox amul woon courant amul ay yoon lotissé wuñ ko woon itam mbokk yi nañ bu baax a baax ci. injaazaat injaazaatam yooyu loolu ci xilaafa la ah, la la matee ni ko noonu tamit sëñ Fallou ku taxawoon la maanaam ku amoon ak xe ak sonn la ci murid yi fonkaat murid gi maanaam leeralaat pas-pasu murid mooy lan taxaw na ci ba tàyyi ay yoon yoon xam naa dinañ ci ñëw waaye ba ci màggal Touba gi sax bi mu koy wootee bind na ab lettre wax liñ liñ fi war a nekkee fii ju Touba ak nan lañ war a màggalee kon ci yeesalaat wanewaat solos yoonu murit liggéey na ci liggéey bu day rey loolu tamit mbokk yi saxal nañ ko ci biir téere bi mbokk yi tamit leeral nañ marché Ocass marché Ocass nga xam ne Cheikh Mamadou Fat Touba mbokk yi taxaw nañ ci wax la ko euh, sancoon ak nan na ko sancee ak yooyu yëpp leeral nañ ko bu baax a baax xëy na pro ñaari projet yi gën a mag nga xam ne moom la mbokk yi gën a taxaw mooy projet euh, màggal Touba gi nga xam ne lañ nekk nii màggal Touba sëriñ bi moo ko woote woote itam dafa waxoon rek ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma ko nag ma sant la yàlla suñ fàllu nag moo ko woote fii ci Touba bi mu koy woote dafa wax ne man damaa deful ko ngott dama bëgg lu ma am lu baax kook ñëpp loolu la ci ci ci paso boobu la jaar daal di woote màggal gi bi mu wootee màggal gi tamit dafa mel ne see euh, seetaanul murid yi leen ndax booba tukkikaay yi yi jàppande woon moo xam otoraay la wala avion wala yenn euh, société de transport yi waxtaanoon na ak nguur gi ba ñu cay defal ay yombal ci jamonoy màggal Touba loolu tamit dañ koy dugal ci ay sottalam am na yoo loo xam ne itam ci mbébétu sëñ bi la woon ni ma ko waxee woon sànq sëñ bi ay mbébétam ñett la woon yi gënoon a mag mooy jumaay Touba ji aj Màkka ak fu ñuy jàngee xam-xam daarul maarifal islaamiya gii nga xam ne mi ngi fii ci Tuubaa ji bokk ci thème yi nga xam ne moom la fii ci exposition bi ci la bokk moo ko fa andi ginnaaw bi mu tabaxee jumaa ji ba ñëpp tàmbalee julli si ba noppi nag indi fi ab jàngukaay boo xam-xam di nga ko mën a am kon buñ doon lim xëy na injaazaat yi nga xam ne moom la mbokk yi indi ci téere bi yëpp mën naa gën a yàgg waaye ci gàttal yooyu daal mbokk yi taxaw nañ ci bu baax a baax mooy lotissement lotissement Touba bi màggalu Touba courant bi ak ndox mi ak yoon yi nga xam ne andi na ko ci dëkk bi ak jumaa ji mu àggale ak daal xam-xam ji mu fi indi ak fexe ba fexe fexe gi fexe ba bokk ci ñi mottali mbébétu sëñ bi dem makka makkatal ma joxe euh, faridatul hajj jërëjëf sëñ Fallou ci bunt boobu nga ñu indil te mooy buntu ñeenteel bi di wax ci euh, euh, wax ci euh, jëf yu rëy yi nga xam ne jëfal na ko jaam yi ci bi mu toogee ci ak ci ak xilaafam kon damay daal di jàll ci buntub juróomeel bi rek bala ñoo àgg ci buntub juróom-benneel bi nga xam ne mooy bunt bi mujj buntub juróomeel bi nga xam ne moom la ñuy waaj dugg mooy wax ci diggante ak ay mbokkam moo xam mbokk ñi mbokkal sëriñ bi wala ci ñi mbokkal nga xam ne ay baay taxam lañ wala ñu bokkal ci wàllum waajur wu jigéen wala daal euh, seex yi nga xam ne Serigne Touba euh, seexaloon na leen wala ñi nga xam ne yaroon na leen te mooy magi yoon wi maanaam ay digganteem ak diggante seen digganteeg Cheikh Modou Fadal kon dugal ci bunt boobu. waaw. bunt bi mbokk yi ñu ko tuddee alaaqaatuhu maanaam loolu tamit ci li ci li ñuy xàmmee nit la bokk. muy nit mën nañoo waxtaanee ak jaamu yàllaam mën nañoo waxtaanee xam-xamam mën nañoo waxtaanee lu bëreem waaye waxtaanee naka la defoon ak ñi ko yàlla bi boole woon jamono itam lu am solo la danañ ci jële ay bind yu bëree bëri. boobu mbokk yi dañ ko xaaj ay xaaj xaaj bu njëkk bi mooy digganteem ak njabootuk Cheikhul Khadim gi ci aw góor ak ci aw jigéen indi nañ ci tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha. Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Moustapha mook ñoo defandoo lépp ñoo fa juróom benn weer loog Cheikh Mouhamadul ñoo ànd ñoo ta ñoo doon ànd di jàng alxuraan ñoo doon ànd di jàng xam-xam ñoo ñoom la sëñ bi digalandoo ñu sant sanc ay dëkk amoon nañu relation bu yaatoo yaatu Cheikh Mouhamadul Moustapha tuddee na ko kenn ci njabootam Cheikh Mouhamadul Fadil tuddee na ko kenn ci njabootam ki ko Cheikh Mouhamadul Fadil tuddee muy sëñ Modou si Dieng sax sëñ Fallou doog joxoon. ni ko noonu si tamit Cheikh Mouhamadul Amin moom Cheikhul Khadim nga xam ne moog Cheikh Moustapha ñoo bokk lépp. Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Amin moom mën ngaa wax ne moog sëñ Fallou sax ñoo bokk ñaari wayjur ndax li wayjur wu jigéen di defal doomam wayjur wu jigéenu Cheikh Mouhamadul Fadel mook ko defal. moom itam amoon na relation bu xóot Cheikh Mouhamadul Fadel euh, ñàkkut sax maag yàlla ni muy ni mbir yi. plateau bi ñu doon def ci Cheikh Mouhamadul Amine maak Serigne Gallas Bamba ñoo ko àndoon wax nañ ci ne bi euh, Cheikh Mouhamadul Amine Baara Fadul laay wax bi Serigne Fallou demee Màkka ba ñëw dafa fekk Serigne Serigne Baara dafa ñëw ca ngan ga fekk fa Cheikh Mouhamadul Amine Alaaji Baara ne ko damaa bëggoon nga jox ma sama turandoo ma yóbbu ko boobu suñ xaw naa déng déngal ne ko ne ko te ngaa bàyyi ma àggale njàng ba pare suñ baara ne ko déedéet ci man lay àgg njàng mu bàyyee ko ko nga xam da ko tuddee jox ko ko day mel loolu tamit la ci indi nañ digganteem yi tamit ak Cheikh Mouhamadul Bachir digganteem ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom mbokk yi dañ cee indi xisa bu yéeme mooy dafa am ko sëñ Fallou sëñ Bachir doo ko seet si mu jël kenn ci njaboot gi jox ko ko nekkoon ko li fekk tuddee ma la doom du ma ko jalaat sëñ Matar Sil la doom soxna Mariama Kunta la soxna Mariama Kunta mook sëñ Fallou ñoo bokk lépp moom la ko jox ba Cheikh Mahamadul Fat ba ba Cheikh Mouhamadul Bachir mi yàlla fi yàgg te ñëw mu dem jox mu jox ko sëñ Bachiru indi nañ dégganteem ak Cheikh Abdoulahi dégganteem ak Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdou Samad ñi ma wax ni ñëpp Sëñ Fall tudd na leen doom Sëñ Fall tudd na Sëñ El Hadj Baara Sëñ Baara Sëñ Abdoulahi Sëñ Abdou Aziz lañ ko doon wax Cheikh Abdoul Ahad mi ngi fi yàlla na fi yàgg tawér Cheikh Abdou Samad yàlla na ko suñu borom dolli xéwal Cheikh Mouhamadul Mourtada mi ngi fi yàlla fi yàgg lool tawér Cheikh Abdoul Qadir moom itam yàlla na suñu borom dolli yërmande ci moom ak Cheikh Saleh yàlla na suñu borom dolli yërmande ci moom kon njabootu Cheikhul Khadim yëpp digg nañ ci tamit ci njabootu soxna yi dikk nañ ci seen digganteeg seen digganteeg Sëñ Fallou bu baax a baax xaaj beneen bi nga xam ne ci lañ xaaj ay relation bi tam mooy yi mu amoon ak mbokk yi digg nañ digg nañ dikk nañ ci digganteem ak Sëñ Mamour Sam comme ni Sëñ Mamour Diarra borom Sam ni ñu ko waxee nga xam ne ku doon jàngal la wax nañ àllarba gi wax ne la ko doon jox ci njabootam gi Mamour Sëñ Mamour Sam moom Cheikh Mamadou Fadil ci la ci njabootam la bokk indi nañ tamit digganteem ak Cheikh Ibrahim Faat maam maam Thierno sëñ Fall tuddee na ko njaboot mu Cheikh sëñ Khalil yàlla na ko suñu borom dolli xewal fa mu nekk. tudd nañ tamit ci njabootam tudd nañ ma Masamba tudd sëñ borom gaawaan ni ki noonu tamit Cheikh sëñ Touba comme ni nga ko waxee woon sànq digganteem ak Cheikh Issa Diagne dikk nañ ci digganteem ak Cheikh Ibra dikk nañ ci digganteem ak euh, njaboot gu mag gi maanaam lu mel ne suñu am sotu jaxate gis nga suñu am sotu jaxate sax moo ko jox suñu aas jaxate mii jox ndigal suñu mii si ndigalul suñu fàllu loolee indi nañ tamit diggante mag ñi nga xam ne ay mbokkam lañ ci Bousso bi sëñ Mbàkke Bousso sëñ Ibrahima Bousso sëñ Afe sëñ Afe Bousso sax saxaal nañ ne sëñ fal daan na ko dénk ay dongo ci daara ji ak ak njaboot gi yëpp nekk noonu tamit mbokk taxaw nañ ci bu baax a baax ci nim séqaloon te duñ diine te bokkuñu ci diine lislaam ji bay benn te mu bokkoon ak moom jamono dikk nañ seen relation bu baax a baax dikk nañ tam ci relation yi amoon nag ñi yoroon réew mi ca booba jamono mbokk yi yaatal nañ ci bu baax a baax dikk nañ tamit ci relation yi nga xam ne moom ñoom la amaloon bitim réew ku mel ne au fait bu wàññee ba nekkoon Côte d'Ivoire ak ku mel ne Hassan II ak Jamal Abdel Nasser nekkoon Égypte ñoom ñëpp indi nañ seen relation ak Cheikh Mamadou Fadel comme daal day mel ne jamono daal Sénégal ak futu Sénégal mbokk yi taxaw nañ bu baax a baax ci euh, relation Cheikh Mamadou Fadel. jërëjëf sëñ Fallou ci buntu boobu nga xam ne moom la ñu génn mooy wax ci digganteem ak ay mbokkam ci wàllum taalib bi mbokkam ci wàllu deret kon ma dem ci bunt bi mujj bi rek te mooy bunt bi nga xam ne moom la ñu tuddee euh, juhóoduhoo fi kitaabaatuhoo wa juhóoduhoo fi xidmatil ilmi mooy ay mbindam moo xam ci wàllu way wala ci wàllu wasar wala ci wàllu dénkaan wala leetal yi nga xam doon na ko jokkaloo mbokk yi euh, rawatina ci ndénkaan yi sax te am na ci ndénkaan bu am solo bu ci nekk tam loo nga xam ne mi ngi ko def ci Euh, màggal gi ci nan lañ ko war a màggale gi mel noonu boobu xam naa ni it boobu da ñu ci euh, dikkal kon ma bàyyi la rek kon ñu dugg ci bunt boobu te mooy mbind ni Cheikh Mamadou Fadal maanaam liggéey bi nga xam daal def na ko ci ci xam-xam. waaw bunt bi nga xam ne moo mujj ñu mbokk ñu ngi ko tuddee intaajuhu al almi intaajuhu al almi dañ ko xaaj ñaari xaaj dañoo ñëw ci intaaj bi. ñëw tamit ci juhuduhu fi nashr al ilmi wal noonu lañ tuddee bunt bu mujj bi euh, Sëñ Fàllu ku amoon xam-xam la am na luñ ci nettali lu xoromo ku ñu wax ustaas euh, Talla Mbay doom Sëñ Yaaram Mbay la daa bind lettre Sëñ Fàllu ne ko aktubu ilayka hadihi risalati maanaam boo waxee hadihi risalati dañuy jàpp ne ar mu mudaaf ilayhi la waaye Sëñ Fallu da koo wax ne ko bir bal ar risalata bi nasb lu tax mooy boo gisee boo gisee aw tur boo xam ne dañ koo maarifaal maanaam ism bu nekkee maarifa bu ñëwee ci ginnaaw ismu ishaara dañ koy jàppee naat wala badal maanaam boo gisee tur daal tur nit la wala tur lu mën a doon mu ñëw ci ginnaaw ismu ishaara fekk tur woowa maarifa la maanaam dañ koo taarifal dañ koo taarif ci al na xam nañ ne bokk na ci liy tax a maarifa al ci la bokk mu ne ko xamal ne loolu benn naat la wala badal te naat ak badal bu mu ci doon ci tawaabe yi la bokk maanaam ci yi nga xam ne dañuy topp la leen jiitu ba faaw ci lañ bokk kon normalement haadihi risalata la war doon sëñ Fallou dafa indi benn bayit bu nekk ci <clears throat> benn bayit bu mu indi ne ko wa in ataaka ismun muarrafun bi al baada al isharati fanaatun aw badal ndax boo nee haadihi su fekkoon aktubu risalata nga fa def dañuy jàpp ne kon nasb la kon haadihi gi moo waral risalati wala nasab kon ku amoon xam-xam la donte sëñ Taala d'accordul woon ca ca booba jamono maanaam amuloo iqnaaxu ko woon daal waaye dem na ba mujj xam ne noonu ñu ko waxee woon noonu la kon effort yi njëkk a def ci tasaare xam-xam mooy tabax ay daara ndax jàpp nañ li ëpp solo ci tasaare xam mooy taxawal ay daara moo xam alxuraan la wala fu ñu jàngee xam-xam te loolu Sëñ Fallu liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy ndax moom ci boppam daan na jàngale am na am na ñoo xam ne jàngal na leen lu bëree bëri bokk na ci soxna Maymuna mu mag jàngal na ko xam-xam yenn xam-xam yi ak sëñ Maxtaar bu sa Faati Kanni sëñ Maxtaar bu sa Faati Kanni mooy way juri sëñ Afiya bu so mii nga xam ne mooy jiite ci jumaa ji ni ko noonu tamit euh, madras indi na ma mbokk yi indi nañ ay turu daara yu bari yoo xam ne moo leen moo leen taxawal ak ni ma ko waxee woon sànq jàppale ay ñuy jàng xam-xam ñu génn bitim réew loolu tamit mbokk yi taxaw nañ ci bu baax a baax a baax li euh, euh, li ñu doon tuddee tasaare xam-xam nga xam ne kon xëy na bu ñu doon bu ñu doon lim euh, ay effort ci jàng xam-xam am na loo xam ne xëy na murid yu bari duñ ko bàyyi xel mooy Sëñ Fallu taxaw na bu baax a baax ci fexe ba njàng maanaam xasida yii ñuy bind yoo xam ne kenn bindu ko bindum loxo mu bindu ko daan ko mool man yàlla dogal na am naa sax ay xasida yoo xam ne ci ay jamonoom lañ ko mooloo bàyyi seen jàttara la ko doon la ko doon taxawloo fi nga xam ne fi la ñuy daaneel rek mooy lettre bi nga xam ne da koo wala boog xutba bi xam ne koo defoon te di ci soññ nit ñi ci màggal yéen <clears throat> maa ngi leen di wax ne màggal gii de màggal gu am solo la maanaam lam ca ci ci tënku lettre bi daal lam ca wax mooy boo leen di dundal màggal gi na ko dundal ci jàng alxuraan jàng xasida ak berndel waaye jiital ci ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw damay jàng lettre bi rek ngir ngir tëjaate ko ngir tëjee ko dafa wax ne bismillahi irrahmani irahim wa sallallahu ala ala wa sallallahu taala ala taala wa sallama ala nabiyihi ilkarim wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi xiyaarul anim amma baad falaa yaxfa ala kulli man lahu bi ilmin bi ilmi sirati adna ilmaam anna taadima baada al ayaami amrun maalumun maamulun bihi fi jamii al adyaan min qadimi zaman ila hada al awaan wala yaxlu taadima ay yowmin minha an an sababin asli kama raayta fi taadimi yowmin yowmi iid al adha ann sababahu ma jara fi qissati nabi nabiyillahi al qalil ba nim jeexalee ci di wax ne euh, leeral lu bëree bëri sax ci fii Cheikhul Khadim jaar ci géej gi waaye leetar bi summa uusikum wa nafsi bi taqwallahi al azim bimtithaalil awaamir wa ijtinaabi nawaahi wal amru bil maaruufi wa nahyi anil munkar maanaam maa ngi leen di soññ ci def lu baax ak di ko digle te wattandi ko lu bon ak di ko tere daal di daal di wax ne fa man yaamal mitqaala darratin daal di wax waatasimu bi xablillahi jamian daan ne sëñ Tuubaa ci boppam moo digle màggal gi sëñ Tuubaa bi mu koy diglee junj ko da koo wax mu leer nañ ñi daan ne maa ngi leen koy digal sëñ Fallou boog lay wax maa ngi leen di digal ngeen defee ko nii dafa wax ne maa ngi leen koy faat faxat amara tasrixan laa talwixan bi taadimi dalika al yawm fa li dalika amartukum ana ala wajhi tajdid wa tawkid fi tuba fi tuba al mahrusa li taadimi dalika al yawmi li maradi li maradihi fi tatmimi bi binaa ima astasahu insha allah dafa ne sëriñ bi moo digle màggal gi te bi mu koy digle junj ko da koo wax mu leer nañ ñi man nag dama ñëw di leen ko digalaat ngir mottali yéeneem ci la mu daal di wax ne maa ngi yaakaar ne suñu borom dinañu defal saadatu daarayni bi charti an laa yakuna fihi munkar wala lahwun wala laib maanaam nag day fekk soo leen di ñëw di màggal si doo leen def lu ñuy tere doo leen def ay caaxaan bal azimuhu bi tilawati alqurani wa dikrillahi taala tabaraka wa taala bi anwaihi wa qiraati wa qiraati alqasaid wa itaami taami lil yataama wal masakin wa silati rahimi wa ziyarati salihin wa ma jara majraha maanaam na ngeen ko màggal ci jàng alquran ci tudd yàlla ak xeetam ya ci jàng xasiida ci leel ñi nga xam ne ay miskin lañ wala dañoo ñàkk jokk ak mbokk siyaare ñu baax ñi ak luy taxaw taxawaayam ala anni qabla an amurukum istadantu ahla dawlati alfaqima fi dalika fa adinu laataa ma leen di woo sax waxtaan naa ci ak loolu tamit bind la buñ ci mën a jëlee waxtaan naa ci ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi bañ nangu ko te loolu daan ne bal aanu ala jamia ma yoxsinu taxsinu dalik jàppale nañ ma ci sax ci seen i wax ak ci seen jëf comme ñu ko daan defee kon ci gàttal moom bi muy woote màggal gi wax na ni mu bëggee ñu màggale ko daal di wax ne ni ma ko waxee nii noonu la ko sëñ bi bëggee woon te sëñ bi ba mu koy wax junj ko woon da ko waxoon leer nañ kon loolu dañ koy dugal ci tasaare xam-xamam ndax ngir dellu ci lan la ñuy màggalee mën nañoo delluwaat ci lettre bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Fadel bindoon bi muy màggal gi